mu fayeenu na kàttanam tollu ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla yàlla nangul suñu jaamu yàlla yépp yàlla na ci yàlla jaare teggil ñu bàkkaar yépp faral nu ko defal nooy xéwal yaatu xiriñ ci jaamu ko tey wéy ndigalam tey bàyyi ay tereem ci barkeb sëriñ bi noo ngi yëkkatiwaat kàddu goo xam ne nun jullit yi dañoo waroon waxtu nekk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 jullit yaa ngi toog di seetaan wante bi ci gën a nag mooy Palestine koor gu jot ñu bon ñooñu والناس ارعبوا ربكم metti loolu li lislaam toll ak ni amee doole mel réew mu ndaw moomu di ay julit ay saay-saay di leen saay-saay suba ak ngoon julit yi ne cel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 réew yu lii dañu jàppaloo benn par benn ba ci Arabie Saoudite waaye gis nga ko nii de lay deme yàlla nag moom li muy def def na ko ba noppi li ci des ñun la desee inna allaha la yuxayyiru ma bi xew yu hatta yuxayyiru ma bi fu anfusihim yàlla de moom du soppi mbir yow yaay jéem a soppi ko yàlla fekk la ci dimbali lañu kon nag ñun nii la ñuy dunde ah nañ bàyyi tubaab bi war suñ kaw rek lu leen neex nañ ko nañ ko def bëkk démb Danemarkien boobu nekk Suède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 yow de bu yow de bu ñëpp mën a ne man di faatu saa si bari di bu weer kon gouvernement bi na dimbale médecin yi def fay jumtukaay yoo xam ne yi nii ñi dañ ci mën a faju su loolu amee nag ku ku liggéeyut nekk sa clinique nga fekk ko fa nag rëq ndigam boobaa kenn du ci wax politicien yi walaay ab politicien moo ñàkk jom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 nga ànd ak moom ba mu gëm la ba jox la baatam nga wàññeekuwaat nag lam doon bañ nga dem yóbbuwaat ko ci te sañu ko bañ waaw nun nag kan la ñuy gëm nun nguur gii nuy xas ñoom la ñuy gëm wala politiciens yi nga xam dañuy wor nun diggante bi kuñ ci war a jàppale man de bu ma leen jàppale nguur gi fi nekk laay jàppale ginnaaw ñëppay wor te moo yore doole ji kon de moom laa jàppale ndax politiciens yi gis ngeen seen wor yi ni mu toll koo ci waxal ko ne la wax du koo ci gëm nag def laa neex rek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 yalla nako yalla rebb yalla rebb ko malaaka yi rebb ko ñu bindal ko bakkar bu toll ne doju uhud te bo xoolee ni journaliste yi li ñuy wax ni lo ci gëm lu nekk bala ngoon motax waxi journaliste yi fi ne kep koy nett li ku nekk le nga nekk afen ka réseaux sociaux yi bàyyi li ngeen def bu nit waxe mo noppi nga jël wax ji dag ko monté ko ni mu ko neexee diko tassaré kat da ngeen xamné bakkar bàkkaar ko reuy